bisimilah rahmaani rahim euh, ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom julli ci sang bu sell bi Seydina Muhammad euh, sëriñ bay ñu ngi lay jaare bu baax di la ndokkeel di la wax bi bisimilah ci dëkk bu sell bi nu nekk tey muy Touba Kayor nag mi ngi ci région de Louga département bu Kébémer nekk ci arrondissement Sagata euh, ñoo ngi. ubbee sunu kàddu ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne mooy boroom bërëb bi sunu borom guddal fanam waaye di ko ñaanal xalif généraux yu tedd yi ci réew mi waaye di ñaanal it bu baax sang bu tedd bi nu fi fekk muy sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Moustapha Bachir moom sëriñ Bachiru moom sëriñ Touba Xaadim Rasul mu toog toogaayu waajuram wu tedd wa sëriñ Muntaxa Mbàkke muy boroom dëkk bi di boroom bërëb bi Euh, nu feggoog nag taawam muy sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ abu moom sëriñ Moustapha Bachir moom sëriñ Bachiru euh, sëriñ bi ñu ngi lay jaare bu baax di la ndokkeel euh, sëñ Mbay tey nu nekk ci bis bu am solo muy ngontum Café Touba muy waa Touba ci kanam Touba ci kanam fii ci pàkk bu sell bii pàkk bii nga xam ne Euh, pàkkub sëriñ tubaa xaadim rasul la ndax moom ci boppam moo amoon yéene sañc ak pàkk ab dëkk tuddee ko tubaa kayoor moom sëriñ tubaa xaadim rasul yàlla def sëriñ Bachiru Mbàkke kenn ku ne xam na ni saalum la moom waaye kenn ku ne xam na ni sëriñ Bachiru mooy kajoor mooy njàmbur ci mbokk ndax askanu looyeen wi fi nekk askanu njóobeen yi bokk kër maam maxtaar ndumbe di kër maamam ndax soxna Faatima du maam Modou Maam Diop Njaga Issa Maxtaar Ndumbe Maxtaar Ndumbe euh, kokki la dëkk tey mais nag waragu njataar jii la jóge 1675 dem sanc kokki kon ñooñu ñëpp di ay mbokkam euh, sëriñ Basiru di fi ñëw euh, daf fi daan ñëw nag bay ñëw ci dëkk bu neex ndaam ci la ndaam ci la mi ngi nii ci wetu sagata di dëkk ay mbokkam mais di dëkk ay taalibeem ci góor yàlla gu baax gu ñuy wax sëriñ màbbaloo sëriñ Maba nekkoon kenn ci sëriñ Bachirou euh, sunu bàyyi Samba Fall yàlla yàlla guddal fanam mi ngi dund ba léegi mi ngi nettali ne sëriñ Maba Lo moomu moo ñëw fii Sagata fekkoon fi maami sëriñ Moustapha mii tey maamam di sëriñ Mor Silla sëriñ Mor Silla moom moo jur waa waajuram maamam bu góor nu koy wax góor gi Cheikh Silla mi nga xam ne moo jur soxna Faati Silla soxna Faati nu jox ko sëriñ Abo Mbàkke moom ci sëriñ Moustapha mii sëñ Mor Sylla moomu nag ma nga jóge woon dëkk bu ñuy wax jëleerlu ca njàmbur jamono boobu wax na ni njàmbur ñàkk nawet mu gàddaaye foofu ak alalama ki dooleem yépp ak nitam ñëw fii doon fi daan dooleem di fi liggéeyal yàlla ak rasulillah di fi jaamu boroomam yàlla def na moom moo doon wëlërew sëriñ Mabba xibaar bi indi sëriñ Basiiru ñëw fi nag ci sëriñ Mabba la jóge tàbbi ci noppam moom xamal ko ne ko nag doomi sëñ Tuubaa daf may ganasi mu ne ko su fi ñëwatee naa ko yëg su fi ñëwatee naa ko yëg jooju moom la ñu wax ne 1937 ba siiru mbàkke ñëw ndaam Serigne Mabba nag yónnee ci maamam Serigne Mor Silla pour mu ñëw ca ngan ga wax nan ni keroog sëriñ Mor fii tey mu dëkkoon ci pàkkam bu sell bi aw nag la defar ba mu àgg mu jël la baax ca nag wa mu ànd ak ay bokkam ànd ak ay dongaam ànd ak ay ñi nga xam ne ñoo doon ay surgaam mu takk ay fas dem fekk sëriñ bi dëkk bu sell boobu di ndam ci la muy sëriñ Bachir bi mu ñëwee mu yendoog moom euh, gane la ko jox ko addiyaam bi nu demee ba ngoon muy tàggoog sëriñ bi ci la ko ñaan ne ko bu ma sañoon nga gane si ma sagata sëñ Basiiru ne ko nangul nan la ko loolu 1937 la woon ñu dem at ma dellu si 1938 sëriñ Basiiru ñëwaat ndaam sëñ Mor la def la mu defoon sëñ Basiru ne ko nag kon jiituma sagata bu ma xëyee falaay jaar may la ngan ngan ma ñaanoon ca ma nanguloon la ko loola moo indi ba nu xëyee sëriñ Basiru nag ñëw fii bi mu fi ñëwee sëriñ Mor la tertu ko ànd i bokkam defal ko teraanga yam ko war a defal jox ko addiyaam sëriñ Basiru yendoog moom ba ngoon ba muy takk di dem sëriñ Mor la ne ko ah man de sëriñ bi bu ma soñoon nga dëkk ak man sëriñ Basiiru na tekk ab diir ba mu yàgg mu ne ko nangul nan la ko ndax sama waajur wa sëriñ Touba day moo ne woon bëgg naa ak Touba ci Kajoor kon danaa sanc pàkk bii tuddee ko Touba Kajoor kon sëñ Mbay loolu mooy sababu dëkk bii nga ñëw tey euh, xëy na fi mu fi ñu ko njëkkoon a daggal kër booy dugg dëkk bi mooy ci wetu école bi am na kër gu la féete tuuti ci loxo loxoy euh, ndeyjoor nu ko wax kër góor gi Alaaji Màggat Gay foofu la sëriñ Basiiru njëkkoon a dëkk waaye bi ñuy lotissé sagata di natt dëkk bi mu ni man duma dëkk ci lu ñuy lotissé nan ma wutal sama péncum mbopp loola moo indi pénc mii tey nu daggal ko pénc mi daggal ko kër gi euh, ba gis nga ko tey mu nekk titre foncier euh, Serigne Bachirou nekk fi nekk fi di ko doxal fonkoon dëkk bi am bëyit yu mu bindoon sax ci dëkk bi muy bëyit yoo xay nii euh, weesuwul dëkkam bii mu ñaan yàlla sunu boroom ñu di ko fi jaamule yàlla di ko fi di ko di topp sunna Seydina Muhammad mu ñaanoon ci dëkkam bii ne képp ku fi nekk euh, yal na ko yàlla defal muy ku jub ku tege ci yoonu dëgg waaye muy ñaan ci dëkkam bii képp ku fi nekk yàlla defal la koom ba nga man cee koomu mën a teral sa bopp teral say bokk waaye mu ñaanoon ci dëkkam bii sunu boroom def ku fi dëkk sunu boroom sàmm la sàmm la aar la aar la ci saayir aar la ci baatin ba dara du la mën a gàllankoor sa diggante ak sa boroom ak diggante sa diggante ak liggéey bi nga war a liggéeyal Serigne Touba waaye mu ñaanoon ci pàkkam bu tedd bii ne pàkk bii daal yàlla na ko yàlla def muy pàkk bu yaatu yal na ko yàlla def muy pàkk boo xëy pàkk bu naat lay doon yàlla na ko yàlla def muy pàkk boo xam ne nii ay julliti yàlla dana nu fi dëkk képp koo xam ne nii euh, yàqkat nga wala leneen nga loo xëy nii bokkul ak lu yàlla bëgg ak rasulillah yi ak jëmmi sëriñ tubaa ak jëmmi sëriñ basiiru ci boppam sëriñ basiiru daqaloon na la boppam ne yàlla na ko yàlla dëddale ak loolu kon mu ngi noonu mu nekk pàkk boo xam ne nii daal bindoon na ci benn darsiya boo xëy nii mën naa ni buñ ci doon topp di ko farañ fàcce ci ni ko liggéeye woon macha allah ca lépp di ay ngëneel kon tey fi la ñuy fanaan sëñ mbay kon ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la wax ne daal ñoo ngi fii ci pàkk bu sell tey nag ñu fas yéene def ngontu kafe Touba ànd ko ak soxna Assu Mbàkke moom Serigne Abibu euh, mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba ci kanam mu nekkal fi Serigne Abibu Mbàkke moom Serigne Fallilu mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba ci kanam waaye mu toogal fi magam ju baax ji soxna Bintu Mbàkke euh, moom Serigne Abibu mi nga xam ne mooy jëwriñu jigéen ñi soxna astu nag toog toogaay boobu ànd ko ak waajuram yi moom mii di soxna Faati Silla mi nga xam ne sëriñ Mor Sillaay maamam euh, wax naa la ko léegi nu jël soxna Faati Silla moomu ufal ko sëriñ bi mu am ci jàmbaar ji toog mu duppee ko baayam sëriñ Moustapha Bachir kon euh, Touba ci kanam bu nu ko organiser fii euh, nekkul lu asaar kon dafa mel na sëriñ bu dafa dellusiwaat ci dëkkam dafa ñëwaat ci kër maamam waaye dafa ñëwaat ci kër waajuram sëriñ Bachiru Mbàkke ndax sëriñ Fallu mii waajuram Euh, mook Serigne Bachiru wax nañ ni sax fii ci pàkk bi euh, bokk nañ fi nekk ndax Serigne fàllu da daan ñëw ci dëkk bii euh, waxoon na tamit Serigne Bachiru yow de ni nga fonkee sa dëkk ba ku fonk sa dëkk ba nga ku fonk Touba Kajoor nga waaw kon loolu wane na ni Serigne Bachiru kon ku fonkoon bërëb bi la ku ko bëggoon la ku ko taxaw woon la ku ko toppatoo woon la ba yàlla def mu jugee fi bàyyi woon lépp ci loxoy Serigne Moustapha Bachir sëriñ Moustapha Bassirou tegoon tànkam foofu fa ko sëñ Bassirou tegoon ba tey gis nga ko nu indi woon fi nag jàmbaar muy sëriñ Cheikh mussa moom sëriñ mussa gañ sire mu nekkoon fi muy sunu sëriñ toogoon fi toogaayu sëriñ tubaa ndax sëriñ Moustapha bashir moo ne woon fii indil naa leen am sëñ Touba Serigne Cheikh nekk fi jëmmi Serigne Touba jooju ba Serigne Moussa Gagne Siré làqu Kaolack mu dem wéttali ji taalibe ya nu indil nu nag jàmbaar jii di Serigne Abo Mbakke moom Serigne Moustapha Bachir muy doomi boppam moom soxna Ndey Mbakke moom sëñ Modou Awa Balla moom maam Thierno kon sëñ mbay tubaa ci kanam ñëw na tey ci bërëbam euh, di jaarewaat ñëpp di ndokkeelaat jataay bi di nuyuwaat soxna si muy soxna su jàmbaare soxna su tege ci yoonu siraatal mustaqim su bëgg yàlla bëgg rasulillahi su teg tànkam fa ko sëñ Abibu Mbàkke tegoon muy imaamu sëriñ eh, imaamu Touba soxna astu nag fabaat jëmmam fabaat liggéey boobu teg ko foofu di jàmbaar nag ci Touba ci kanam ndax tey eh, sëñ Mbay Touba sagata dana danañu fi ñëw Touba coxna danañu fi ñëw Touba antenne danañu fi ñëw mais tey dëkk bu ñuy wax Touba kër jëwli danañu fi ñëw Touba ndaam mataar Touba ndaam cilla Touba njuugeen eh, Touba këneen njobbu Touba Warak dëkk yooyu yëpp da nga leen fi gis ba ba ngay dem Touba Ndank Baabu ba ngay dem Touba Mayaay ba ba ngay dem Touba euh, Njaw Njaw Koppe Touba Njimñas Touba Bayti Mbasin ba ba ngay dem Touba Njiñaax Faal Touba Loro waaye tey euh, macha allah euh, luy tund wi tey ca di ay munit ca bokk ci Touba ci kanam incha allah ci kanam ñëpp dañu néew ci jataay bi àndoon ko ak ndongal Serigne Bassirou Mbacke Mbaye Fall. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.